bu ñuy wooyee candidature spontanée nit ki soxlawul ñu koy woolu pour laaj ko ba xam mën na yor wala mënut yor candidature proactive la mooy toog ba xool xam ne fii mën naa faa dem mën naa koo jiite mu def déclaration ne c'est un candidat yaakaar naa ni sama droit la yaakaar naa ni aussi sama devoir la ndax bi coow li jub depuis ans ba léegi kenn taxawut ci monde làmb ne mën na yore CNG man nag ci monde làmb laa bokk kenn lu ma ci dindi j'ai sauvé l'honneur tey suñ ma woowut boole ma ci laaj ma ci sama xalaat te suñ ma woon sax la ma leen ameel ameel ko ministre bi ameel ko CNG ameel ko monde làmb mooy programme ameelu ma leen leneen non xam nga tey ñun dañoo nekk xale ñëw di seetaan ci làmb continuer di ànd ak ay mbër nekk président école de lutte nekk ay amateur xam lan mooy coono làmb parce que du waa CNG la mbër dem di seeti ñun la mbër ñëw di seeti te seeni jafe-jafe ñun ñoo ko gën a xam te xam nañ ñoom ne ñoom ñoo ngi ci ay jafe-jafe dañuy dégg ne xaalis bi bëri waaye ku la ci wax ne la mbër sonnut moom lay nax su fekkoon ne et man li ma ci metti ñu ne làmb du métier football métier la te pourtant footballeurs yi dañuy bàyyi seen lépp dem di football di nekk ci ay club yu mag ku yàlla sedd cër ci biir làmb làmb su la protégé war nga see mën a génn mais nag xamalan moo des politique de développement bi état bi définir pour làmb moo baaxul te loolu du problème waa làmb ji problème mu ñi jiite làmb ji la dama la si jox benn exemple bu ndaw Covid bi dangaa dégg ñu woo ci monde làmb pour dimbali leen dégg nga ko yow association entraîneur yi da ngaa mës dégg ñu dimbali leen. promoteurs yi jël seen avance jox ko mbër Covid bi ñëw ñu dimbali ñëpp tëb leen mbër yi jot seen avance dem dépensé ko préparé pour bëre Covid ñëw ñu annulé combat bi est-ce que da nga dégg ñu woo leen dimbali leen ñoom père Ibou Ndiaye ñu ko bàyyi nga xamante ni si ayca ay la lañuy mose dara. da ngaa dégg ñu woo leen dimbali leen. làmb dañ koo desee jox cër te yéen xam ngeen ni homme politique bu bëgg tur balaa muy def dara mooy dem wuti ku ko tuddee drapeau su xasee nag ba falu kàddu yi muy yëkkati sax di ko teg ci kaw deru mbër ñemewuñu ko fee tudd te pourtant ñoom fépp fu ñu mën a dem mbër mooy ànd ak ñoom ndax ñoom seen doole rek lañu am di ko liggéey ci liggéey boobu nag ñuy liggéey ak seen doole si nañ leen woowee waaye dama bëgg suñu jógeetee ci yooyu muy campagne ak lu mu mënti doon làmb cër gi mu moom nañ leen ko jox CNG aussi disipline bi muy bëgg mbër yi di amee nañ ko njëkke tey ci seeni membre ma fàttali rek te bañ a tudd tur dégg naa seen benn confrère journaliste ba nga xamante ni ku nekk CNG du ko dóor dóor yu méttee métti métti métti est-ce que mës ngeen dégg ko yéen mësul am te dóor yu metti lañ ko dóoroon waaw on lui a rectifié le portrait ah moom moom balaa ma xam nañ ci may wax parce que xam nga mag bu ñu dóor nga taxaw di ko nettali daa mais quand CNG foofu waroon na si jël ay mesures te pourtant mbër su dóoroon kenn ku nekk CNG wala dóor journaliste dañ koy rajee wala ñu aj ko aj bu méttee métti loolu mooy jàpp ñàkk jox cër mbër mbër yi aussi pour ñu mën leen a jox cër foog ñu nangu di topp seen encadrement bi nga xamante ni moo nekk seen i école du lutte làmb waxi lutte avec frappe la nit ñi di wax mais problème yi nekk ci lutte simple nekk ci lutte olympique moo ëpp fuuf kon donc su ñuy wax pour jëlee ci làmb point A yóbbu ko point B yaakaar naa ni bëgg a war nit ñi ne Alioune def na fi dara kenn werante wu Alioune Sarr organisé na làmb waaye Alioune Sarr dagg na làmb lu bare bare bare bare ñun nag li ñu bëgg mooy démocratie bi am fépp ñu indi ko ci biir làmb doxal ko am na benn question ba nga xamante ni. bàyyi ba ma daaneel rek am na benn question bu ma xamante ni waa Lutte TV seen live bi ñoom ñoo ko posé ñu ne Kéba c'est un homme politique suñ ko joxee làmb ji da koy politiquer mais pourtant ministre bi commandé làmb ji c'est un homme politique ñu jóge ci loolu fédération football ki koy doxal c'est nom homme ñu génn ci loolu yëpp ki jiite réew c'est un nom politique ñun bi ñuy ñëw ci làmb solo ñu casquettu homme politique casquettu amateur di jënd billet di toog di supporter di ànd ak mbër xam li xew ci biir géew xam li xew ci buntu làmb xam li xew su mbër bëree ba pare dem di jëli reliquat ñu toog seetlu ne problème bu am du waa CNG ñooy jug dem régler ko ñun ñooy jug régler ji ko te je défie tout le monde du ñu tudd ñoom ci ay cas ya nga xamante ni intervenir nañ fa wala intervenir nañ mais cas bi nga xamante ni tey Sénégal yépp dañ ko ñaawlu encore une fois muy kaawu Jules Baldé Junior yàlla na ko yàlla yërëm ruuru yàlla moo ko moom waaye waroon nañ see def benn geste même bi mu génnee àdduna waroon nañ dem jaale ji ko gis naa ko nag Tyson peut-être parce que Pikine la dëkk noonu laa ko joxe parce que gëw ni turu CNG la fa ñëwee mais su dara dul dara njabootu làmb su amee la nga xamante ni daf see okk nit njabootu làmb war nañu jug faj ko problème yooyu nag moo bëri ba tax. ñun ñun waxuñu ne suñu joxut làmb ji làmb ji dee déedéet waaye dañoo bëgg si suñuy tànn ñu woo ñi nga xamante ni ñoo seq làmb su làmb di neex ñoom la suy naqari ñoom la ñu associé leen si waxtaan ak ñoom trouver consensus fal président bu bees